ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci li gën a fës ci xibaaru digg bëccëg gi ñu di ko door ak wàllum politique wax ci proclamation résultat yi nga xam ni doon nañ ko amal niki démb te présidence te euh, cour d'appel ba nekk ca Ndakaaru doon ko fësal niki démb ginnaaw euh, résultat yi nga xam ni moo tukkee ci élection présidentielle yi ñu doon amal niki 24 mars 2024 ci loolee ñu dem xool ko ñëwaat. 12 voix soit

751 voix, soit 50,28%. xam moy mooy euh, passation de service manam service bi nga xam fassiyene nako yéene lengi yeb ki di Bassirou Diomaye fay mi nek nouveau président de la République waaye ci loolu Macky Sall yemul foofu nak mi ngi wëlbatiku di ñaax ñi nga moy euh, euh, gouvernement bu Sénégal secrétaire général du gouvernement ak présidence maanaam ñëpp ñi nga xam ni ñoo ëmb nguurug Sénégal ngir ñu mën a jël lépp li nga xam ni moo war ngir Bassirou Diomaye Faye mën a daal di tàmbali ab liggéeyam en tant que chef de l'État bu Sénégal niki le 2 avril la ba tey ci wàllu politique kii di Anta Babacar Ngom nekkoon euh, candidate ci yile élection présidentielle yi ñu doon amal niki dimanche moom nag ginnaaw résultat yi ba mu génnee jot na am ab génn bu am solo dal di ci am ay kàddu yi nga xam ni doon na ko dénk askan wi waaye itamit doon na ko dénk di président Bassirou Diomaye Djahar Fay ñu déglu ko. salaamaaleykum mbokki Sénégal ci biir ak bitim réew damay dellu si di jël kàddu ci waxtu wi ñuy dund muy ay waxtu un am solo ci histoire politique du Sénégal 24 mars 2024 askan wi démocratie feeñ Réoum Sénégal waneti d'ayom ak ab matam ci kanamu yep. yépp may sargal président Bassirou Diomaye Faye di ñaan yalla woyofal yenbi, bi ba Sénégal yi am ci lu sut seen may félicité bu baax askan bi yépp di leen delloo njukkal mais beral cant sénégalais yi amoon yaakaar ci man ba sànnil ma seen carte maa ngi leen di jaajëfal élection yi dëggal na maturité politique suñu askan ak fi suñu conscience citoyenne toll wër nañu Sénégal yépp yegg nañu fu tànk lambut saafonte nañu ak askan wi fépp fu ñu dem dalal ngeen ñu déglu ngeen ñu benn kàddu rekk laa am muy jërëjëf jërëjëf suñu façon yi politique donte wute na mais juumuñu ci ndaxte lu jóge ci xol ci xol rekk lay dem sama yéene moo nekkoon jiite Sénégal ngir ñu am rupture donte gañewuma élection bi am naa yaakaar ni rupture dina am ci Sénégal te Sénégal mën na tegu ci yoonu liggéey may dalal xel yépp ne yoon wi yamul fii ndaxte ci lépp lu may dugg dama ci jiital gëm yàlla nangu dogalam te fonk samay kàddu ci bépp anam bu ma ko mënee dina continuer liggéeyal Sénégal ndax Sénégal rekk moo ma ñor taxawaayu askan wi bettu élection bi dafa référendum.. ab référendum ngir tane une rupture ak continuité da fay wone Sénégal fi sénégalais yi tollu ci le changement ak dogu ngir indi ay coppite ci suñu doxalinu réew ak suñu ak li tax man Anta babakar ma dugg ci politique mengo ak li tax ma candidature ci élection présidentielle yi te loolu fay fekk si li tax ñu taxawal suñu mouvement alternative pour la relève citoyenne sama yene nak tay la gëna a dëggu muy taxaw tém ngir délo ci jamm ak dal ci réew mi rafetal yorin wi tek ko ci démocratie ak bonne gouvernance sukkali koom-koom bi bolek indi noflaay ci askan wi mais encourager bépp responsable ak militant wu ARC bi juddoo ak léegi yàggut huit mois juróom-ñetti weer waaye liggéey nañu fi liggéey bu mucc ayib xeex nañu ngir samp mouvement bi fépp ci Sénégal de Kédougou à Saint-Louis de Matam à Ziguinchor jamono ñi weesu rawatina ci campagne électorale bi équipe yi wane nañu fi xalaat yu rafet ak ambition bu yaatu wane compétence bu mat sëkk ak maîtrise bu ñu maîtriser xarala yu bees tu vois organisation ak communication maa ngi leen di félicité bu baax maa ngi dalal seen xel ne amul découragé amul wàññi tey la suñu taxawaay gën dëggu ñu fas ay sentinelle de la démocratie sama yéene mooy révolutionner anam bi ñuy defee politique fii ci Sénégal teg ko ci esprit de responsabilité proposition ak ay débat d'idées boole ci morale politique ci yar ak teggin mais ñaan yàlla na yàlla dolli. Bassirou Diomaye fay ginnaaw ba mu gañee yile élection présidentielle ci loolee nag dal dañu retracé ab jaar-jaaram. fële ca Mbour géej nag lycée ba nga xam ni doon na fa nekk doon fa sàkku xam-xam moom nag proviseur bi nga xam ne jot na ko yore temps ba nga xam ne doon na fa jàngee jot na amal ay témoignages yu ama am solo jëlee ko ci Bassirou Diomaye fay mi nga xam ni nekkoon na ab brillant élève ci loolu lee ñu dem dékkandiku kàddu yam fa yëkkatee. ay waxtu def nañu ko di seet ci archives yi ba daal di gis kaye yi li nga xamante ne 1997. ba 2000 la woon file nag fi la def ay note composition yu njiitu réew Sénégal bu yes bi li di Bassirou Diomaye Diakhar Faye du bon travail élève sérieux ci lycée Demba Diop gi mu jaar mu bayyi fi way wu rafet ndax ay note yu bax Diomaye nak jaar-jaaram fi jaar-jaar bu bu rafet la bu ci ayib parce que seconde nga nek premier de ta classe au premier semestre au deuxième semestre et eh, annuellement on est le premier de la classe avec une appréciation de type eh, bon élève sérieux travailleur ambitieux donc on y le na première nga eh, première troisième au premier semestre au deuxième comme par sa moyenne annuelle mais terminant, il est revenu pour être premier au premier semestre au deuxième semestre et au et, et à la moyenne générale. mu nekk njiitum réewub Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di yeggale yéene gi nga bu ko muy jumakoor ndax bu ñu ci ñi xam def na lu bëri ci njàngub xale yi ci dëkku kaw gi. maamam moom li mu doon mu doon xeex pour l'émancipation pour nit ñi yóbbu xale yi jàng pour ubbi école école Ndiaganiao aussi il s'est battu pour l'installation de cette école. il s'est battu aussi pour nit ñi doom ci école ndax xam na rek moo mënoon maye changement moo mënoon a indi changement. njiital lycée bi jaar ne lile la ba tax na muy so soññu jàngalekat yi ak itam ndongo yi. exemple mënul raw president fii la génnee. limi muy inspiré enseignant bu ne bo ne nekkee ci kanam xale yi nga sóoraale ne mën na am ci say élèves yi président ministre wóor génne ci élève waaw ba lépp loo looy def nga def ko ci série élèves yi ñoom ci seen bopp xamal nañ ko seen bopp waaw muñ la nee sa école bii nga nekk fii la président ju génnee da ngay wër sax classe bi mu nekkoon pour. parce que c'est historique. de classe. Il nous a fallu des heures de recherche, parcourir les archives de 1997 à 2000 pour retrouver les registres où sont classés les bulletins de notes des compositions du tout nouveau président de la République du Sénégal. tey yi nag fële ca Pikine nag ay ndaw ñoo daal di jàpp ab bus Dakar dem dikk dal di ko taal nag ndax loolu nee nañ carrément li nga xam ni moo wundu li tax ñu taal boobu boobule bus Dakar dem dikk kenn ci nag ci élément bu police ba nekk ca pikin moo doon dóor ki nga xamante ni ab ndaw la ba sax mu daal tey jaaree génn àdduna nit niki àllarba démb ji ci loolee nag ñi nga xam ni ñooy euh, police bi nga xam ne ñoo nekk ci euh, fële ca euh, Pikine nag ñoom nag xam le nañ ñi ndaw ya xam le nañ ñi ñoom ñooñee ñoo rey kenn ci ñoom mi ngi tuddoon Mouhamed ñu gënoon koo xam ci turu Taya ci loolee société Dakar dem dëkk bi nag xam na ni mi ngi génn di ñaaw lu ni mel ba sax dina ñu amal ab suspension boo xam ni dañ koy jëmale ci banlieue bi ba nga xam ni benn bus dootu fa daw ngir seenu kaaraange bopp ci loolee ñu déglu ab ab victime boo xamante ne nii yëkkati na ci ay kàddu yow gaañu ñu la. yow yaay chauffeur bi yow yaay chauffeur bi. alors bi ñu ñëwee ñoom lan lañ la wax message bi dañ la wax dañ la génnal. dañ ma song taw ko dañ ko song taw ko. parce que ñoom bi ñu ñëwee def nañ ma dóor nañ ma pour ma perte ko Kami man introduce sa ginawa si Andrea Tan. Ano ito? Ano para ka? Ano ito? Ano para ka? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Matera yep muy, sama matera yep muy pop. Sama matera yep muy kiri orang. Nanti kami untuk itu ini, ini adalah doy waar doy waar am na fii nga xamante ni ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi revendiqué ne commune Pikine moo rey ki nga xamante ni mooy Ahmed Saaya ñu ngi fii nag di jàmmarloo ak police yi boobu léegi daanaka ay dégâts matériels yu bëri ci xibaar yi ñeel bitim réew daal di koy commencé ak fële ca Togo ginnaaw tension politique ya nga xam ni ma ngay woy di monter ginnaaw adoption ginnaaw loi bu yees ba nga xam ni ñoom nag daal di nañ koy adopté mu tudd ins mu tudd constitution ci loolee nag ab conférence de presse boo xamante ni parti opposant yi ak groupe bi ñu tuddee société civile nag ñoom ñoo ko organisé woon ngir ñaawlu loi bi nga xam ni euh, daal di nañ ko voté te ñoom d'accorduñ ci benn yoon ci loolee nag ci seen digg conférence ba nga xam xam ni doon nañ koy deful ak ci la gendarmerie ba daal di ñëw daal di dakkal seen ndaje bi nga xam ni doon nañ ko amal ni ki àllarba ci suba mu des rek 48 heures ginnaaw boobulee adoption ñoom ñooñee nag génn nañ doon naqarlu li nga xam ni daal nañ ko voté te ñoom d'accorduñ ci benn yoon xamle nañ ni nag dina jafe lool ngir ñu dégg seen voix ñoom ñi nga xam ni amuñu ci benn contentement ci loolee nag ay fanweer ci ñoom ak lu teg ci parti opposition ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci état civil bi nag la gendarme la ñi nga xam ne ñi ngay takk takk der yi nga xam ne ñoo nekk ca Togo nag ñoom lañ jàpp daal di leen euh, arrêté seen daje ba sax am ñi nga xam ne nii jot nañ leen cee jàpp ci loolee nag ñoom xamle nañ ni daje bi ana dara dara wundu ko li nga xamante ni moo di leen naqarlu ak bañ li nga xamante ni moom la ñu daal di adopté ñu fas yéene ko appliqué ci seen biirub réew bi nga xam ne nekk na ci guddik lundi lañ ko commencé jàpp mardi dem fële ca Australie wax ci li nga xam ni moo di abandon maanaam procédure ya nga xamante ni nii euh, Australie jotoon na ko commencé ngir daal di porter plainte ñi nga xam ni mooy Chine

ñu dal di visé woon niki 2020 ci provenance boo xam ni maanaam mi ngi jugee ci euh, Australie loolee nag suspension des droits yi nga xamante ni droit de douane la woon te mu daal di jóge ci Australie daal di jëmoon fële ci nga xam ni mooy Chine loolee nag daal di ko dindi maanaam yoon dootu leen topp ci dara ndax ñi nga xam ni ñoo ko déposé woon muy Australie nag daal di nañu fas yéene daal di teg plant yi daal di teg yëpp yëpp yi nga xam ni jotoon nañ koo commencé ni ki euh, daaw ak at yi ñu weesu fas yéene nañoo teg procédure yooyu yëpp ci suuf loolee nag le ministère des affaires étrangères bu Australie daal di xamle mu nekk euh, Perry Wong ak ki nga xam mooy ministre Israël ak ministre australien bi nga xamni mo yor walum commerce di Don feurel ñom ñooñee nak ñom ñaar loolu le lañu genn génn daal di koy fësal ci ab communiqué. wax ci li nga xamni mo ñeel xibaaru tagat yaram yi daal di koy ak Jeux olympiques yi nga xamni 2024 la ñu diko amé feulé ci Paris lanceuse bu mag bi nga xamni moy France lanceuse française bu mag bi nga xamni moy euh, melina Robert Michon mom nak xamlé nañu bi moy euh, fan bi moy euh, euh, juróom ak ñaarelu jeu yi nga xamanteni ni mi ngi ci bokk ñukay organiser fofu ci France waye suñu sukkandiku ci agence France de presse bi xamna ni nak mom lanceuse bu mag bi nak nek na ko xamni mom mo moo andi li nga xamni moy drapeau France ci bile jongante manam mom rek mo war mëna tax France daal di remporter li nga xamni modi drapeau bi wax ci li nga xamni moy match amical manam football xarito bi nga xamni ci diggante Pérou ak République dominicaine nag ci loolee nag Pérou daal dinay mëne ñeenti bal ci benn République dominicaine ak ak ki nga xam ne mooy Argentine mi nga xam ne doon na dajeek ak Costa Rica ba daal di koy euh, mëne sax ñetti bal euh, ci dara waaye ci seen daje boobu maanaam ci seen match xaritoo boobu noonu footballeur bu mag bii di Lionel Messi nag nekk meilleur joueur euh, mondial moom nag jotuta fekkee bile match loole moo nekkoon li nga xam ne moom lañu leen indiloon mu gënoon a fës ci xibaar yi ñu ngi leen di jaajëfal ci kóolute gi di leen jox dig daje ba suba